je m'arrête c'est clair non damay leeral en temps normal on te parle des périodes d'exception mais vous écoutez ah vous me donnez vous me de ah, lister jël ay mesures yoo xam ne sont applicables selon selon selon les situations day normal en temps normal quand il y a des conflits ou des manquements à la loi les juridictions compétentes du pays ñooy def léegi ces pouvoirs là en bu amee ay conflits énormes wala qui persiste il peut y avoir dans un état l'état d'urgence qui confère à l'autorité administrative plus de pouvoir pour que ñu mën a perquisitionner d'office dans une maison de jour comme de nuit fi ne nii en temps normal man mënu maa sa kër en enquête préliminaire à partir de vingt et une heures hors les cas de mais nekk nii de. normal lañ nekk moo tax ma ne la autorité administrative ñooy décider bu dee état de siège mais actuellement là où mais pourquoi on l'a pris là-bas est-ce qu'on l'a arrêté bi ñuy dem ñoom ci àll bi di ko jëlee est-ce que dañ ko arrêté arrêté wuñ ko mesure administrative la pour limiter les dégâts et les éventualités de dégâts sur les biens et sur les personnes mais dañ ko jël indi ko administrativement isolé ko indi ko këram bu doon ci beneen terme ngay wax beneen terme le droit ngay wax la yoon mais les gens vont procéder à une arrestation mais ils n'ont son comportement compromet la sécurité publique et l'autorité administrative a le droit de restreindre ses libertés et d'enfreindre certains de ses droits fondamentaux kooku droit la boo xam ne réew yëpp la am c'est pas les sénégalais la ñoo ko suñu ko tënkee dañ ko def infraction du moment que bu ñu xalaatee ñoom ne peut-être tey Maria bu génnee fii wala bu defee lii ak lii ak lii ak lii. problème la na c'est la proactivité ñu jël ñu jël décision. mooy proactivité mooy proactivité. ok c'est la proactivité. la proactivité dit que l'autorité comme en matière de police et de tactique militaire dafa am ce qu'on appelle la proactivité vous na laissez pas un prémisse de conflit un prémisse de de désordre public wala prémisse de crime ou délit nga bàyyi kooku mu def ko ba pare ngay def ce ko appelle la réactivité un état doit agir pas à euh, agir à réagir okay. c'est ce qu'on évite d'accord